investors. Scammers has done it again. <laughs> Pending, completed, fail. From WSM, come with me to all group. So when you are using your phone to play, I'm using mine to make money. Now admin don't left the group. Your money they flag like. You don't know. You don't know why it's going on. You go explain tire. No evidence. How ma Allah will ill. dëkk bi jaxasoo na nag continue al groupe yaay compine bi si boppam moo lef groupe bi daw ne mes ne men teng kenn gisu ko kenn tegatu ko bët xale yi ñu investoon ñàkk leen seen xaalis ñii jël school fees dugal ko fa jasa jël seen xaalis ndekki dugal ko fa ñii leb dugal ko fa ni sen seen ñu yónnee la ñu dugal ko Ni sen salaire dugal ko fa sen seen mbaraan ñu dugal ko fa ñii seen dugal ko fa xaw ma kon wax xaalis koy na groupe admin bi nax na gaay dem bugga ngeen lu yomb trop bugga tok benn place nek billionaire am na ñoo xam ne jënd nañ si auto kër and everything yëpp si dream invest sa xaalis si foo xamut wala si koo xamut moo nekk jënd jaan si pax rek risque la ragal du ko def country meeting bi moom xam naa li yëpp dinañ si des na